diwlin moom xaw naa manqué jamono jii nii lu bëri bëri ma ne diwlin moom xaw naa manqué lool sax ah, ñenn ñi dañuy naan ci commerçant yi ñenn ñi di naan ci état bi parce que état bi dafa am prix bu mu santaane pour na ko commerçant yi jaay te fu muy bàyyeekoo foofu moom amu fa jafe na fa lool ba jéggi dayoo sax commerçant yi nag comme nee nañ léelu arrangé wu leen ñu bañ a moo tax diwlin di fi manqué lool sax ah, bari na sax ñoo xam ne ne nanguñu waaw amal na ko kay parce que ñu bëri amuñu diwlin benn ci man ah dañoo éliminer diwlin complètement jaayatuñ ko waaw suukar ah suukar moom fu mu toll ni moom tane na moom man de maa ngi koy gis di ko jaay prix normal bi mooy kilo 600 waaw waaw même ceeb tamit xaw naa jafe lool surtout parfumé bi yeneen yi moom am na tuuti waaye parfumé bi moom jafe na ah, bokk na ci nag li ko waral mooy maanaam geeru geeru Russie bi ak corona bi ñu jógee bagage yu bari du loolu sax kese yeneen yu sew yi sax lu gën a jafe moom fu mu toll nii amul lanti nag petit pois ak xorompol ak muscade amul daan loo amul leen lu ja lu yomb jamono ji gis ko sax lu jafe la waaw. ah xanaa jéem a naxante rek bu ñëw daal bu taxawee dina jooytu yow mii koy jaayit nga di yërëm daal ci lu muy jënd xam ne moom amoon na yomboon na daawoon na jënd fu mu toll nii moom comme amul moom. Ah, dimbalante daal moo fi nekk waaye wala ku yore téeméer di jënd boo xam ne boo jëndee lii du la arrangé nga wëññi rek li nga doon jënd moom waaw ah. xaw na metti moom jamono ji wax dëgg yàlla ah, waaw waaw ci weeru koor gi nii xaw na metti parce que gis bagage sax yombul waxuma la nag looy jaay waxuma la sax prix bu seer gis ko sax moo jafe ñun ñii sax coono giñ ci am mooy li liñ ci doon am amatuñ ko ci parce que gisutuñ ko waaw lépp lu ñuy gis moom lu cher ba jéggi dayo loo doon jëndee tey fukk bu subaa ñu naan la ñaar fukk wala fanweer gis ko sax lu jafe la xanaa ñu gën a góor rek xam ne jamono ji moom jamono ju metti la du fii du fii dong la fépp a metti waaye nañ ci gën a góorgóorlu rek mën a dimbali nit ñi parce que comme li ñuy lekk moom dañ koy jeggaane te fu muy bàyyee ko amu fa te lu fa am dafa seer ah foog état bi gën a góorgóorlu rek di gën a teggi taxi yi di gën a jàppale commerçant yi ñu mun koo dugal nit ñi mun a utiliser ba jéggi dayoo sax amu ci lenn lu ci yomb waaw. sëñ bi nuyu waaw ñoo lay fay soxna si la. ñu fekk la tey ñuy waxtaan ci lu jëm ci wàllu ndugg bi euh, ñu bëggoon a xam rek ndugg est-ce que am na ci kooru bon ndugg bi moom tane na nii rek ren moom am na mais dafa xaw a cher tuuti quoi sûrement commerçant yu mag yi lu ñu koy jaay moo cher moo tax waaw mais moom tane na quoi car macha allah waaw. tane na ñoo xam seeraay bi lan moo ko waral. seeraay bi c'est ñi koy ñi koy bay. ñoom pour muy ñëw si fii nii ñoom seen transport yi ñuy fay ak yooyu noonu moo tax ndugg bi su ñëwee bu fii Dakar day cher quoi mais su nekkee ne dëkk ba fële na ne du cher waaw mais fii moom baa day cher trop. ñoo lan moo gën a tuuru ci marché bi carotte navet supame. la moo ci gën a tuuru bon lépp tuuru na fi fii kay car macha allah lépp am na fi moom lépp am na moom échange ni fu ñu toll ni moom lépp am na waaw. waaw waaw côté prix yi nga xamante ne moom ngeen di jaay yéen itam est que yéen a ngi ciy def ñoo ngi ciy def xéwal mais ça rek. ci ñu nekk ci kaw quoi ñoom ñoo yor lépp ndax parce que ñoom suñu ñëwee yokk seen bagage ñoom ñun suñu ñëwee jënd si ñoom dañu koy yokkal loo moo tax ñun tamit baax foog ñu jaay pour mën ci génn voilà loolooy problème waaw. fee wàññeeku. wanteer bi non non pourtant gaa ngi wanteer sax sûrement ci ginnaaw fii nii gëb la gaa dañuy wanteer waaw mais pas mal daal tere na daal. yàlla su ndugg bi desee est-ce que du leen indil jafe-jafe yéen koy jaay. waaw penn saa yi nañu jafe-jafe tàngoor bi su ñëwee nii moom ndugg bi moom dañuy indi jafe mais su nekkee ni seddaay bi nii moom garaawul seddaay bi moom waaw ndugg bi dina tane moom waaw du mën a nëpp nii baa mu yàqu nii non du gaaw. liggéey bi ak weeru koor gi. liggéey bi ak weeru koor ah métti na trop métti na trop mais loo xam ne lii yàlla moo ñu ko santaane foog ñu def ko ko waaw mun a ñàkk waaw mais yàggul nag. est-ce yéen a ngi bàyyi xel weeru koor gi di ci def xéewal itam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy togg ndog yi rawatina reer yeeg añ yeeg. bien sûr ndax parce que fii moom yaa ngi si ginnaaw fii nii rek gaa dañ fiy def café loolu moo tax fii moom gaa yi yaa ngi ñëpp dañuy joxe gaa yi def kafe ñëpp ndogu waaw teg ko ci yoon daal fii moom lépp moom alhamdulilah jigéen ñi ñu ngi kaas nee nañ da ngeen war a gën a wàññi seen loxo bu ko defee rek koor gi mën a neex ñenn ci jigéen loolu la ñu waaw loolu moom dëgg la loolu dëgg la loolu lu ñu wax noonu bàyyi lu am la dañoo war a wàññi suñu loxo mais am na si ñoo xam ne moom ñoom dañuy augmenter prime bi waaw am na ñoo xam ne moom bàyyi duñu wàññi mais ñun moom car macha allah fii moom loo ñëw rek kilo pomme kilo ak kilo nawe ak yooyu kilo supame lii mën nga ko amee téeméer ba 600 gaa dañ koy jaay 600 nawe bi 400 ba 300 carotte bi téeméer moom